classe politique bi loolu noonu lañ ko bëggee woon je crois que nous sommes tous d'égale dignité tous les acteurs politiques doivent être d'égale dignité donc ñoom ñoo ko choisir woon noonu am na nu ñu doxaloon je crois que en deux mille dix ku fa njiitu rek ñu bàyyi la nga dem mais je crois que ni am na coow lu bari lu ci amoon mhm. ñu jàpp ni xëy na pouvoir bi ñoom la ñuy favoriser parce que ils s'étaient organisés euh, je crois que c'était madame Aminata Touré à l'époque si, si, qui si, s'était très bien positionnée mu jaw bon mm-hmm. kon dafa créé woon ay suspicion moo indi fi coow lu dul jeex mais classe politique ñoo toogaat waxtaane ko mais mm-hmm. moi je crois que ni il faut faire confiance au conseil constitutionnel ak ñiy arbitrer mm-hmm. euh, xool say lu mu def ku ci ku ci jàll ñu jàpp ni règle de jeu boo gis am na am na ñu ci kontaan am na ñu ci dul kontaan malheureusement c'est comme ça euh, li ci gën am solo euh, doyen wax na ko sànq en off avant ñuy commencer émission bi moom jàpp na ni les prochaines élections de 2029 ça va constituer les élections les mieux organisées au Sénégal donc cela veut dire quoi mooy tey manque loolu nga jàpp ay manquement la ay crante la rek parce que mhm. yeggaguñu à l'épreuve il faut que ñu xam lan mooy xew mhm. euh, am nañu possibilité toog ni ñu ko toogee wat waxtaanee ko wat corrigé wat ko comme c'est une œuvre humaine. Mm-hmm. ñu di ko corrigé di dem. mais ñi nga cité aussi bu dul président Idrissa Seck je crois que kenn amu si passé électoral aussi ñi nga ma cité léegi am ay inquiétudes ci ñoom. Mm-hmm. mon frère Abdourahmane Diouf euh, madame Aminata Touré. Mm-hmm. ak kan nga wax. Euh, Idrissa Seck booku avez non dama ni en dehors de Idrissa Seck ñoom ñëpp kenn amu ci un passé électoral mm-hmm. donc ñoom aussi c'est des novices mm-hmm. dans ce domaine c'est leur première tentative d'être candidat parce qu'ils ne sont pas encore candidats c'est des candidatures déclarées mm-hmm. il y a que le conseil constitutionnel moo mën a taxaw daal di même parrainage boo ci jàllee cela veut pas dire que nga jàll aussi ça c'est un autre problème processus la rek Euh, Khalifa Sall jàll na parrainage. mais teewul bokkuñu. waaw moo tax man la processus la. mais fi mu ci toll nii ak li ngay wax nii. il faut qu'on fasse confiance <coughs> aux acteurs politiques et ceux qui arbitrent et qui qui vont juger. ñu toog seetaan xool ba xam. ndax li ci gën a am solo pour man. ban leçon lañ ci mën a tirer. bay éviter encore yu mel ni ba ay de wala ci mën a am ba ku war a nekk candidat ñu bàyyi ko mu nekk. mu nekk candidat au delà des des des parrainages ak yooyu yëpp ko donc man pour man processus la. expérience la dañ ko ciy boole rek. jàpp ci xool li ci baax. ñu conserver ko li ci nekk ay manquement ñu toog waxtaanee ko. wala euh, on avance quoi mais il faut ñu am ay préjugés favorables d'abord ba pare. d'accord ay coow lay indeeti ay wax fer ak ay benn presse tirage au sor moom wax dëgg yàlla tey en direct ci télévision yi ñëpp di ko teg mm. kenn du wax bi yoon moom amul njuñ njaay waaw bi yoon moom kenn du wax seen candidat yéen est-ce que nekkul son son neuvième position bi Amadou Ba mais a plusieurs possibilités mm-hmm. même bu fekkee ni parrainage citoyen yi waaw ah, dinañ si ñëwaat après si loolu dajale yëpp ni leen jàllu leen dinañ si ñëwaat on a quatre cent quatre cent maires Hmm. on a plus de quatre cent maires dama ko résumer noonu rek. et on a combien de députés plus de quatre vingt députés.